di ko ñaanal bépp jullit di ko ñaanal bépp taalibe murit di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy vingt 24 actu via les réseau sociaux di jaajëfal Al Ousseynou ak tout l'ensemble du personnel. Euh, jërëjëf sëñ Mbacke ci présentation bu am solo bi mais est-ce que mën nañu xam sa jaar-jaar ci politique. waaw sëriñ Mbacke jaw de moom jaar-jaar yi xawut a bari ndax ginnaaw bi ñu jàngee ba pare. Eh, ki nga xam ne mooy le président Serigne Fallou Mbacké jël ñu teg ñu ci wetam depuis deux 2014 eh, jamono yooyu nag dañu doon xëccoo élection locale conseil départemental suñu borom defal ko ci sutura mu gañe ko eh, boobaak léegi nag ñuy ànd di liggéey di liggéey ba 2016 avant ñi def référendum yi ñu waroon dem ci joŋante ndaw ñi mooy li ñu tuddee conseil communal de la jeunesse ci la présenté sama candidature au niveau de la commune de Taïf yàlla dogal ñu joŋante ma gañe ko bi ma ko gaño itam ci laa jógee ñëw fii ci département bi li ñuy wax conseil départemental de la jeunesse ñu def coalition ñu ànd liggéey yàlla dogal itam ñu gañawaat ko ma nekk secrétaire général du conseil départemental de la jeunesse. Euh, sëñ Mbacke ñu seetlu na yaa ngi nekk président conseil communal de la jeunesse de Taïf ñu bëgg a xam nan nga jàngatee euh, politique de la jeunesse. politique jeunesse bi de dafa am ñaari pàcc ndax bu dee politique développement euh, ñu ngi ci bay sunu waar di ci def li ñu man waaye nag bu dee politique politicienne bi moom. politique développement naka ngeen ciy bayee seen waar. politique développement d'abord mooy conscientiser les jeunes. fexe ba ñu am jumtuwaay yu mën a jàngee am xam-xam ndax bokk na ci li sonal dëkk yi nga xam ne ñoo xaw a sori ñu leen wax les zones rurales ñàkkum njàng wala ñàkk bërëb yu jànge parce que ko nga xam ne mi ngi nekk ci dëkku àll comme ni ñu koy waxee soo yeewoo amoo foo jàng wala nga jàng ba am sa certificat amoo foo jàll pour préparer sa BFM e finalement da ngay écourter sa système éducatif. Eh, loolu nag suñu borom dimbale nañu ci ba àll avec euh, jàppale gi ñu président Sëñ Fallou jàppale ci zone boobu. Euh, gone mën na faa yeewoo di fa jàng ba am bac dem université ca du génn ndax classe yëpp ña nga fa niveau yëpp ña nga fa. jàppale ñoom jàppale boobu euh, parce que boo demee ci dëkk yu mel ni ay Bayla lu ci mel ni ay Minam Sarr lu ci mel ni ay Cissé. ay digg da sentir ne dëkk yi si ce pas euh, école yi wala tey li ñu sëñ Fall rapproché ak euh, yombal gi ci njàng mi euh, du ñu am intellectuel li ñu am tey te macha allah léegi boo fa demee da fa fekk ñi nga xam ne am nañ seen i baccalauréat ñu am seen licence ñu am seen i master. ndax mën nga ànd sëñ Fall moo waraloon nga ànd ak lu bi may ànd ak moom c'était avant la suqali Sénégal. parce que bi may ànd ak moom à l'époque moo nekk euh, ci PDS euh, mu doon nit koo nga xam ne nag dama suivre politique am pendant presque muy def politique pendant presque vingt ans moo koy suivre bi ma xàmmee mu nekk euh, deux fois député nekk ko ci département bu Gossas à l'époque Taïf mi ngi bokk ci région de Fatick c'était en 2001 mu def liggéey bu am solo ci gox boobu mu jóge fa par exemple def na li ñuy wax ay addiction d'eau def na ay construction de salle de classe comme ni ma la ko waxee léegi def na ay électrification ci certains euh, quartiers ak jàppale nit ñi aussi ñu am am xëy bi nga xam ne moo ëpp solo mu def ko euh, bi ma ko defee itam ma di ko suivre mu ñëwaat yàlla dogal mandat député bi jeex en 2007. mais waaw xam nga da nga may poser question li tax ma ànd ak président Sëñ Fallou j'aurais aimé que nga bàyyi ma ma àggale ko parce que dina am solo itam ci ñuy dégg xam lan mooy sabab ndaw di jóg di topp nit ndax dafa am conviction ndax daf cee gis intre personnel wala da dafa jàpp ne homme de principe la donc su ma waxee li tax ma ànd ak moom rek kenn ku ci nekk di am jàngat boo ci am moo tax ma préféré. comme ni ma la ko waxee léegi bi mandat boobu jeexee en 2007 su borom suturaal ko mu amaat beneen mandat yàlla dimbale ñu tam jóge jugee jëlee Taïf rattaché ko ak de Diourbel mu nekk commune rural ci acte 2 bi mu defaat fa liggéey bu am solo Taïf am CM ñu jàngal ndaw ñi man ñu bokk naa ñu bénéficié wu ci loolu ba yàlla dogal tey Taïf yi nga xam ne bokk na ci à part moo fi am lycée ci département bi. ci parmi les seize communes kon je crois que loolu doy na rek ci ñu jàppale ko waaye euh, yemuma ci ndax li tax ma ci mooy doon naa suivre éthique ak déontologie ci doomu aadama nooy defee politique jàmm yàlla dimbale ma bi ma defee samay gëstu gisuma Serigne Fallou Mbacke wax lu ñaaw ci ci télé wala ma dégg ko mu wax lu ñaaw ci rajo wala mu santaane ko defloo ko itam ay nitam ma jàpp ne kon war na maa ànd ak ndax principe yooyu donte mi ngi def politique it juddu bi am na ci solo. waaw en fait mooy li ma la expliqué léegi xam nga bi may ànd ak sëñ Fallou c'était avant suqali Sénégal suqali Sénégal dafa amoon ay objectif parce que mu ngi ko créé juste vers les élections législatives en 2017 avril 2017 c'était presque à deux mois des élections législatives ñu gis ne PDS amuñu pan candidat amuñu candidat euh, conditions yi Karim Wade nekk vraiment permettre ko mu ñëw perte na ay droit même suñ ko waxul Euh, bi ñu gisee loolu yow tamit président Sëñ Fallou jàpp ne war naa mën a conquérir ay député au niveau de l' assemblée nationale parce que jot na itam gox bi lu mel ne Touba ak département bi ci li fi nekk ci électorat ñu am groupe parlementaire mu jël ab liste boppam teg ko tuddee ko ànd suqali Sénégal c' était une coalition boo xoolee liste ba départementale comme nationale pratiquement ñi ci nekk ñëpp ils sont de la commune de Touba wala boog dans le département de Mbacké donc loolu moo ñu créé ko maintenant bi ñu Euh, mu gis ne élection yi li mu ci xalaat mooy bàyyi ba ñu valider les candidats def parrainage mu xool candidat bi nga xam ne programme mu méngoo na ak bëgg mu ànd ak moom suñu borom dogal itam candidat yëpp su tàndal ko laa mais même def na ko mais mu gis ne Ousmane Sonko moo nuroo ak programme mu ñëw Taïf ñu waxtaan mu def déclaration le 2 février soutenir ko. waaw loolu moom yaakaar naa résultat yi ñoo koy déterminer parce que boo xoolee ku mel ne président Ousmane Sonko nga xam ne bii du première jonganteem élection législative yi demoon na ci ci Pastef bi mu demee li mu amoon Touba ci ay voix ñëpp xam nañ ko waaye avec le soutien du président Serigne Fallou Mbacké moom mi ngi arrivé troisième ak plus de douze mille voix donc je crois que loolu rek ça suffit comme comme comme soutien de ñu xool seetlu tamit maanaam élection yi bëri na ay coow yoo xamante ni am na ci ñi ne premier tour ñi ne deuxième tour yéen ban gis-gis ngeen ci am euh, résultat yi ñuy joxe moo normal wala lan la. non résultat moom joxe ko sax waaye ñiy wax deuxième tour mooy électeurs yi ñu wote contre Macky ñoo ne deuxième tour premier tour moom ko dégg mu wax ko rek waatal ne ak ndomba tànk la am ci nguur gi jeex wala ku dend ak Macky la deuxième tour nag société civile la koy wax. mooy forum civil wala citoyen lambda bi wala ñeneen ñu nekk ñi leen di qualifier comme les gens de l'opposition parce que ñoo voté. programme ngeen fas yéene taxawee bu fekkente ne deuxième tour am na. deuxième tour bu amee mooy ñu jàppal ñu dat ñu dem comme ni ko gars yi waxee rek gagné ko parce que nit ñoo am volonté jëlee ko fi. mais su fekkee deuxième tour bi am. deuxième tour day am loolu kay amul hypothèque. amul ñoo ko wane. mais dañoo seetlu ne ñi nga xamante ne ñooy ànd ak Sonko ak ñi ànd ak Idrissa sekk def nañ benn ndaje am ñu yëkkati seen i kàddu ci biir euh, di xam le ne ki nga xamante ne moo di président Macky Sall su nanguwul deuxième tour évidemment bien sûr bokk naa ci man mii ñu wax loolu maa ngi fa woon bokk naa ñu ko wax parce que am réew tamit Macky Sall dafee bàyyi yaayu fi ñu bàyyi fi yaayu fi nit la comme ñëpp gënuñoo jàng gënuñoo xam gënuñoo bëgg. ba tey ba tax yow bëgg jël sa bakkan bi tay la. non damaa jàpp ne. damaa jàpp ne bala ñoo àgg foofu Macky dina reculer ndax nag bala maa faatu xëy na mën nañ koo faat. Mhm. Euh, ñu gis ne ki nga xamante ne moo di maître Moussa Diop yëkkati na ay kàddu yoo xamante ne jëmale ko ci Ila Touba bi ñu bëri ñu nga ci wax yow loolu ban jàngat nga ci am. waaw loolu de dañ koy déplorer waaye sànq sax maa ngi am benn information du ma dévoiler source bi waaye ñi ngi wax ne limogé nañ ko mais kooku limogé sax du si moom li mu def sëñ Touba li mu wax sëñ Touba. na xaar ba ren di déwén la yan jeexital lay am ci moom parce que sëñ Tuubaa mu xeexluwut xeexluwut kenn tubaab bi def nag lu gën diis loolu ci gis na saafara yi raay bee gënoon a metti foofu ci dañ ko indi jumaay Touba. kàddu yooyu moom est que jàpp nga ne lu dëgg ci moom rek jàpp ne da koo bëgg a wax pour waa Touba tiit ak genre mel noonu moo tax mu yëkkati ko. Moussa Diop ma kat kafal Moussa Diop daa tiital waa Touba bay ba Moussa Diop di ñu tiital moom jumaa ji gën a cher eh, Ila Touba bi ci Ila Touba sax nag wax dëgg yàlla ñun yàgg nañoo wax ne surtout yi ñu tuddee ko Ila Touba nañ ko dindi Ila Fouta la ñun ñun yàlla dañoo suturaal ba lim doon wax ñu koy ñaxtu mu yombal yàgg wax loolu wala da a bàyyi ba dernier moment dañoo yàgg wax ba ci ticket bi booy dem dugg ci dugg ci oto jaar ci Ila Touba bi Ila Fouta wala ñu ne la Ila Sénégal lañ lay bindal mais amul fenn autoroute Sénégal. Ila Fouta parce que yow Touba nga dëkk yow loolu sa sag la saglu gis-gis bu rafet nga. très bonne question lu tax ma ne du Ila Touba euh, ma ne Ila Fouta la ñun Touba la ñu dëkk euh, gis nañ corniche bi gis nañ Ila Touba bi mu duggee ci dëkk bi bi mu duggee bi ak si gaz Dakar. Mhm. dafa wër jël droite génn ñaari pono dem ba yoonu ndind bi ko corniche daara Jolof mu projet wu jàll ndax waraat na corniche bi agsi waat mais yow laay laaj de non yow donc voilà denk denk denk bu fekkonte ne Touba ko tax a day topp corniche ba mu jeex mais bu mu ñëwee partie droite bi fi oto yi war a jaar képp ku mën a dawal oto def code de conduite xam nga li may wax. daa jël droite. rawatina safoo si ñoom ñoom dañ koy ñu ngi nekk loo xamante ko ne da ko war a daw lu mat ay 3 heures de temps wala 4 heures de temps mën nga ko daw xam nga la ah, koy wax. ah non. waaw mais xam nga xam nga lan laa bëgg comme ni nga ko waxee léegi ne sunub sag la autoroute Ila Touba ñun duñ ko sagoo lu tax duñ ko sagoo mooy xaalisu Sénégal la ñu jël tabaxee ko am réew dañ koo leb sax ñun ñoo koy fay man su ma fa jaaree damay fay yow boo fa jaaree da ngay fay keneen ku fa jaar day fay xam nga kan moo fay jaar du fay le président Sall moo fay jaar fay kon kon kon lépp lu ñu lay jaay rek jërut sago même yow soo jaaroo ci Ila Touba bi sax dugg yeneen oto dem Dakar da ngay fay mais bul xool ne fay googu da ngay. waxuma waxuma fay googu de fay gi ci oto bi fay fay gi ci fay gi ci oto bi fay gi ci oto bi. bokkut ak fay ci tali oto bi moom boo duggee autoroute di fay boo duggee ci tali bee fay waaye nag da fay fee ba pare borom oto bi fayaat du coup au nga fay prix ba ngay fay voie normale bi da ngay yokku pour que mu compenser li nga war fay boo nekkee ci autoroute bi. tey laa tubaab moom bu ñu ci génne woon euh, baatu tubaab rek yóbbu maanaam baatu tubaab bi yoonam desee niwut franchement nan ñu dimbale rek ñun moom wax dëggal suñ tubaab dimbale nañu ba manqué wuñ dara euh, mais ñu tamit ki nga xamante ni moo di Mouhamed Boun Abdallah Dionne dafa euh, génn yëkkati joxe ay résultat ñu bari nag ñu ngi wax ne résultats yi ni mu ko joxee nii waru ko woon a joxee loolu tamit ban jàngat nga ci am daa amul benn problème ci Sénégal ndax yaa baay bi mu fi amoon dëddu nan jabar la fi am bàyyiwu fi doom kon moom bu Sénégal doon faagagal avalisam ak jabaram dong lay moo tax bu réew doon toj du ko problème waaye ñi fi am ay doom am fi jarbaat am fi nijaay am fi lépp ñooñu doon xalaat li muy xalaat mais moom amul benn souci quoi ndax amul à part sa femme amul koo xam ne topp na ko ko um, ñu seetlu tamit eh, ñenn ci taskatu xibaar yi même résultat yooyu tamit jox nañ leen ci baaraamu tuuma loolu tamit yow. Uh, effectivement effectivement je le dis de je le réitère ne sont pas dignes qui n'ont pas de l'éthique loolu dama koy wax je le dis et je parce que nag gis nga nit ñi kenn ëpp leen xam-xam nit ñi aussi kenn dàqu leen a li ñu tiim di ko wax. nee naa résultat yi bi mu génn ci urne yi Touba gi rek la preuve journalistes yi fi nekk jëm jéem nañoo rejoindre seen i organe di leen jox information mais gars yi si kaw dañuy lànk di bloquer boo leen waxee ñu ñu dañuy woote ba sonn man dama leen suivre mais da ngay journaliste boo xam day woote ci rajo bi ne xaaral ma jox la bureau sàngam gars yi na ko xaaral tuut xaaral tuut am na ko ne ci nga jàpp ne ñooñu dañoo gaaw a joxe information wala ñoom dañoo. non ñooñu ñoo nangul ñooñu nangul dégg information parce que information bi njëkk a génn daaru mar naan bi ko benn journaliste joxee ci lay quelque organe nangu nanguutu te dégg parce que xam nañ ne lii xeeñ baaxul ci Touba arrangé wul la parti au pouvoir mooy defetu Macky te arrangé wu leen parce que orchestré woon nan seen résultat ci Touba yàq na lépp. fi nga hmm. euh, waxuma la nit ña mais xare sax bu nu watee waan tolluwut ak Daaru Xuddus waxuma la Touba de Daaru Xuddus. kon <laughs> mais dama ne la xar yi sax bu leen woteeloo woon bu noon sex ay xob di yàbbi ci biir nii. tollawut la daara ko de daa nguuru Macky Sall lépp a mën parce que am na ñoo xam leen xam nga loolu amoon. Ah. xam nga lu am. Mhm. gone yoo xam ne dañ leen fekk fan toog jàpp seen loxo yi ba agsi ñu dir seen loxo bi teg ci bi nee na dugalal lii fii. pour wax la ne la foofu waxuma la xale yi doon wote mais xam nga li lu gën a garaaw lu fa am nit ku toog ci taabal jël bulletin Macky Sall dugal ko ci enveloppe xaar nit ki ak si mu jox ko mu dem dugal ko jàpp na sax nit ki bu demee ma naa trahir nga xam dangay jël ñetti ñeenti bulletins yi téye ko nii jël bu Macky Sall dugal ci enveloppe bi jël ñeenti bulletins yi teg ko ci kaw bu àggee enveloppe bi rek lay dugal ci ñeenti bulletins yi génn wala bu génnaatee àndaale ñeenti bulletins yi ñu laaj loo def. mais ñu seetlu ne yéen euh, defoon ngeen mission France. loolu hmm. lan dans le cadre du travail c' dans le cadre du travail professionnel donc en tant que agent du conseil départemental dama jiite kuréel gu ñuy wax ODEJ office départemental pour l'emploi des jeunes ma amoon ay partenaires yoo nga xam ne waroon naa leen seeti yenn yi nekk Luxembourg yenn yi nekk Belgique yenn yi nekk France euh, ma demoon Bordeaux pour waxtaan ak ñoom nan laay def ndaw ñi nekk fii am benn qualification professionnelle ñu mën leen a jàppale ci seen i projet ñi nga xam ne aussi am na ay ambition réaliser quelque chose wala ñi nga xam ne am nañ ambition liggéey ci am entreprise yu leen soxla foofu aussi ñu xool avec notre partenariat nañ ñuy def ba booster eh, seen seen pousse leen ñu am ñu am xëy loolu moo waraloon suñu voyage foofu noonu France yàlla dimbale nañu itam ban àggee am nañ ci lu ñu bëggoon donc ñu war fa delluwaat mais avant ñu fay delluwaat partenaire yi war nañu ñëwaat euh, mois d' bi bi bu ñëwaatee it dèjà ñi commencé doon def recensement am na ndaw ñun jot a gis. bien évidemment moom laa lay wax ni moo tax ma ne la ñun bi ñu demee eh, d'ailleurs ñun rek ñi nga xam ne dem nan suñu borom dimbale ne ca bañ am fa benn formation am ci ay diplôme euh, yàlla dimbale ñu yokk ci suñu xam-xam bi ñu paree itam ñoom ñëwaat nan am na di quelques personnes yu ñëwaat nga xam ne ñi ngi retrouvé woon booba ñi ngi demoon Foundiougne foofu la ñu tase ñi defaat benn euh, bilan ci li ñu li ñu defoon en France Euh, ñu tënk ko ba ñu ñoom bi ñu delloo ñu jàpp date pour ñëw fii avril certainement deuxième semaine mois d' avril euh, pour ñu xool ñu recensement yi nga xam ne jot nañu ko def ci département bi jeunes yi ñi nga xam ne jox nañu seen i projet peu importe bon dans tous les domaines pratiquement ñu xool nan la ñuy recruter ñoon jàppale leen pousse leen ba li ñu bëgg ñu réaliser ko bu ñu paree ci loolu itam ñu delluwaat xoolaat yeneen perspective yu ne emprunté waat pour beneen domaine Mhm. waaw loolu moom dañ leen di sant rek di la sant yow vraiment ci li ngay def nii parce que bi ma ñëwee toog nii jàkkaarloo ak yow sama xol dafa sedd dafa am benn gis-gis boo nga xam ne nit ñi dañ koo am ci département bu Mbacké surtout commune bu Touba que ñun lu dul xëy dem marché rek jigéen ñi mënuñu ko. góor ñi itam loolu xëy seen uh, xëy sol seen ni ouvrier eh, ngoon jot ñu naan kafe rek mënuñu ko fekk gars yi xam na lépp dañoo murite rek amuk taalibe waaye lu nit nekk dakaar di ko def rek gars yi ñoo la ko dàq mais dañoo jaay loolu jënd ko taalibe na càll ak moom kon macha allah bu ñu la gisee nga def nii ca mënoon a demee neneen mënoon a la neex gontu xaar ku la neex mu yóbbu la fu la neex defoo ko nga am éthique ñëw toog nii di liggéey jàpp sa bopp am fulaak fayda ca xam li xew ci réew mi vraiment loolu dama la ci encouragé di encouragé aussi Al nu ci liggéey bi muy def vraiment parce que journaliste bu am éthique rek moo la mën a jël téléphone am woo la soxla la parce que mi ngi lay suivre du question dafa lay may promotion sax mais dafa lay suivre xam ne yow mii war ngaa mën a wax nit ñi diglu la parce que organes yi loolu lay jariñ li nit ñi mënul dem ci nit ki dégg ko nga ubbil ko antenne bu mu wax ko ñëpp déggandoo ko ñëpp mën cee jariñu yow min koy defal itam nga mën cee profité bu résultat yi génnee nga xool critique yi nga mën cee jàngate bu dee looy soppi nga soppi ko bu dee looy ang looy dund motivé itam nga gën cee jàpp donc loolu la ñuy wax di ñaan li nga xam ne mooy deuxième tour bi bu Macky Sall jàppee date bi ñu dem ci ci jàmm yàlla jëlee ko fii te ki fi suñu borom di teg itam jàkkaar ji nit ñu am ci moom mu matale ko xay na sax du ko mën a matale à cent pour cent waaye la Serigne Fall waxoon Ousmane Sonko rek laa koy wax contrat lay doon bu mu signé ak askan wi. ci contrat boobu bu nit ñi ne yow la rek jërut ngay jubilé na nga tiit parce que yaakaar dafa diis kër sax boo takkee soxna dugal fa sa sa xel duuta dal waxuma la ak am réew kon dool loolu la ni ñaan jàpp nañ ne nag askanu Touba moom duñ juum ndax ba Macky falaw ba tey mosuñu ko wateel te yaakaar ju tas lañ ci xalaatoon kon bu buñ dikkee ba ci muy war a ñàkk ñëpp wan ko ginnaaw kon kin jox bopp jàpp naa ne kooku war naa mën a yor réew mi ci ki nga xamante ni moo di Serigne Fallou Mbacké suxali Sénégal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant képp ki nga xamante ni yaa ngi bàyyi xel seen euh, site internet bi di 24 actu euh, rawatina seen invité de la rédaction Baye Zal moo nekkoon ci caméra bi ak El Hadj Ousseynou Ndiaye ñu ngi sant bu baax a di leen gërëm di leen jox dig daje ci yeneen jotaay mbokk yi jërë ngeen jëf